You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. billaahi wallaahi tallaahi gis nga man man man géer gu ne bëgg naa la waaye laaj ma man géer laa gën a bañ laaj ma géer gu ma gën a bañ géer goo xamante ni boo demee xew ñëw nettali ko sax géwal da nga déglu ma wax la gis nga man man man géer taamu naa man géer gi ma gën a bañ xam nga gan géer la mooy gan géer goo xamante ne bu demee xew ñëw nettali ko géwal mm-hmm. mbaa géer goo xamante ni boo demee seeti ko doo ko fa fek ah gir géew géer da nga efficace dinaa la xamal leen nag di nga soxla bàjjen Touré mii. déedéet bàjjen fii xam nga ne bu nga fekkoon dañuy jox li ñu bëgg. waaw waaw ah, moom musuma def nii. xëy na nag daa am gàllankoor. waaw gàllankoor bu yàq si yéen. xam nga magum jëm. weeru koor gii naaj yu tàng nga topp ci dox. xam nga yow démb nga fanaanoo géer gi ndax démb nga ni ma démb nga ni ma bu ñu xëyee ñu seeti géer gi. waaw gis nga euh, Ngom dag may déglu ma ko la man akum géer xam nga kan laa taam may Maymuna Seen ngir da ngay mel ni Maymuna Seen yow yow mbaa nga mel ni Adja Degen si meer ah nga mel ni oh Nabou Baas eh, Ndiaye xoolal léegi Ndiaye ah man bu ma merloo dox nañ ba ñàkk tooy xëpp ah, yow yaa ngi dégg yow ma merloo war ngaa mer man mi nga yóbbu te fayeekum bu ma la yóbbu da nga am bu ma amee da ngay am oh, oh. bu ma a doo am man moome daa ba xanaa bala loo fayee ko fekk fa gént géer gaa daw géer da ngay mel ne may mën a seet ma ni jéer boobu bàyyi ko sama député bu ñaawul boobu eh, man li ma lay wax laay da laa jógal yàlla aay ci fóotu mbuur fóot ma géer gaa ngoog oh ataata ngeen mën nga dasin mën nga dama daa ak sunu ko mbala waayo bay ma teel <laughs> a xëy di guddee wàcc def sa devoir ba mu mat faale woon na moom mooy jigéen ju man oh, góor ma ne ko dëgg ah. damay am fit. da nga naan dañuy am fit. ah xam nga xam nga géwal. Mhm. mooy may mooy may géer fit waaye géer it day may géwal fit. fekk nag li ma gën a neex si moom. waaw koy mooy fu mu dem ñu fekk ko fa man looloo ma neex si moom. teel a xëy la xam guddee waat. papa Isa jàppale na ma ko. moom daa am am na yitte loolu na Adja dëgg namm naa la. dëgg ci meer déwén na ci baal maax. baal naa la yàlla ñu yàlla boole jéggal. wallaay la ko gis nga def am na xam nga nit ki demul ba rek na day jël ab prix eh, eh, gu jàmm. ne bu paree fay ko giir la bari na dem dem jënd ko quatre-vingt quatre-vingt quatre-vingt ñaata. yóbbu na ndeyam màkka ñaari yoon maa ko seede. waaw kër Rasulullah waaw yow ba maa ko yóbbu. kon xanaa dinañ dem ñun. ah <laughs> déglu ko rek. déglu ko rek dégg nga si weer waaye. sant bu baax. Ah. sant bu baax a baax. ñaaw waaw waaw waaw xam nga rek yaa ma gën a kër gaag yooyu. Ah. préparation yeeg nangam. man nag ñëw naa fa sax ni nga mën a ngaa voyagé. wax nañ ma ko wax nañ waaw waaw. yow yow yaay sama géer. Ah. te ñoo fa àndoon sax yow. man yaay sama géer te fental naa la bu way. man mii tamit fental naa la way. bu ñu ndogoog jàmm. nañ ko dégg incha fan laa koy wooyee fii de daa la woyoon xaw ma sa noonu ajaa dëggeen gisuma sa noon a ah, déedéet ku bëggoon ni mel ni yow melu ni ko doon sa noon nit ñi la defoon na ca gën yàlla noppi na. mu <laughs> eh eh déedéet Ndiaye man loolu baaxul. déglu ko rek déedéet Ndiaye loolu a dina ñëw na may ba pare déglu ko. Adja dëgg da ngay naa ne ki lay gën a. gaaw ci man gaaw ci man. <laughs> à son tour. sama xol sedd na. bi la fi ñaaw bi la fi ñaaw. bi dang fi rafet. doo fi fi ñaaw. fii dem fii rafet. jaajëf <laughs> yàlla sa jàmm yàlla. moom waaw waaw danaa ñëw kër ga. danaa ñëw kër ga. sant naa la gërëm naa la ñaanal la fanu gudd. ak wér jeex eh, boy. na nga na nga na nga na nga waaw xoolal ni ngay dawaleel madame. waaw yow madame yow xanaa. madame yow la woon bii de. da ngaa changé. walaay da am nga ku baax. ku bëgg nit. da lay may oto sur le sang yow dawal ko la mu bëgg rek. waaw koy jërëjëf. da ngeen góorgóorlu. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive It's like my soul thrives in your life Jox ma ndox mi nag yaay lu may def kafal gi ba pare li ma ci sama koor jox ma ndox mi déedéet yekk doxin bu dëgër bopp jox ma ndox mi waaye ma la kafe la ni njëkk naan ba pare yëg xamoo li ma ci sama koor gi loolu baaxul loolu baaxul waaye yow li baax ak li bon danga koo xam ah waaw ah, kay abal ma ndox mi xam li ma wax waaw jéem a jël kafe gi naan kafe gi neex na de. ñoo bàyyi ko dafa demeewul loolu. Hmm. xam nga yow moom. ndox koy xam naa li tax ma ko bokk. li jaay dafa leen ni a. waaye la ma yëg ca koor ga ngeen xamul. ku nekk na nga koo yëgee yéen ah, ah, ah. Hmm. man maa wooroon. man maa wooroon. man dañoo wooroon yow bàyyi ma dimbali ma man. nga wooroon ngay hmm. wax. musique. xanaa la kii kii là nhanh nhanh bây giờ em mình đọc đầu đi đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây là đây đây đây là đây nó xe nó xe đây đây đây đây ai đi đây mẹ nó đang nó cái gì đi ăn đi đi ăn à mẹ nó đang làm gì مين لا يخلي من نخرج Taxaw taxaw taxaw taxaw. oui taxaw waaye danga may bokk taxaw. Ndiaye réponds-moi. oui Ndade Ndade yow yaayoo. Ndiaye ñàkk naa jëfee. Ndiaye fu ñu tooy ah. Ndiaye réponds-moi. oui oui Ndade. oui. Ndiaye. nu mu rekk yi ba kii mu rekk yi. yee. ah ñoo doon jox ko. foo nekkoon yow. lu ngeen ma kii loo mooy yéeli nii yow. fan nga nekkoon fii la ah ak moom lu ah lu ngeen ma jàppee nii ah lan moom lu mu jël fii lan la jël lan la ndox dafa naan ndox mu sedd te naanu kaw expliqué leen ma ma xam li xew lan la ma ni Ndiaye ndox mu sedd bi ñu lay tere bi kan yow waaw yow mii xew Ndiaye bàyyi leen bi nga ne waree ba ok seve naa c'est bon gérer lañ ko. ah damaa maroon. amul problème sëbë naa ko. yàlla mu rëbb bool wala. waaw ñu ngi mu rëbb yow. yooyu ngay sëbi leen dee. seen hôtesse yi xamoon naa ni ngay demee seen ndogu du mot. si. Ngom. yaa ngi tane. wóorooraat na waaye yaa dàq ndogu ñëpp. waaw yaa ngi tane. waaw maa ngi tane. maa kon kan moo xamoon Ngom wala man.